mbokk ak xarit yi ñuy teewlu fi ci VIP People TV dal leen ak jàmm ci euh, tënkum xibaar yi di flash info tey jile di euh, talaata yem ak fukki fan ak juróom ci weeru ut atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent ñu door ko rek ak message bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci Ousmane euh, Sonko mi nga xam ne ma nga ca nungu siin foofule ca Sébikotane moom mi nga xam ne moo nekkoon njiital Pastef lile moom nag moom Ousmane Sonko ci ab bataaxal goo xam ne ne daal dañu ko daal di xaatim ñu jébbal ko kenn ci ay avocat am mu daal di koy euh, génnee moom Ousmane nag mu nga ci cay ñaawlu ak di xarlu li nga xam ne moo jot a xew foofu foofule ca Niger nga xam ne euh, CEDEAO ci boppam sax dañoo bëgg a def li ñuy tuddee intervention militaire maanaam daal di jëfandikoo doole ngir jëlaat euh, nguur ga delloo ko ki nga xam ne moo di basu ma fa nekkoon te ñu def ko coup d'état ñoom daal loolee la ñu fas yéene doxal Ousmane Sonko nag jàpp kon dafa jàpp ne daal CEDEAO dañoo war a jëfandikoo li ñuy tuddee ab euh, maanaam euh, waxtaan jëfandikoo jàmm ak dal te bañ a indi euh, xiiro ak ŋaayoo ci réew moom mi nga xam ne moo de Niger nga xam ne yàgg naa dund ci misère ak la ci aju ci jamono yee yeñ leen di coloniser ba tey moom jiital Pastef li muy wéyal ci ay kàddoom muy dénk rek waa CEDEAO di leen xamal ni leen coup d'état am na biir Niger te dégguñu fa benn bal bu fa tàkk wala sax aw xat su fa dam mu mbaa kenn ko fa amee ay gaañu-gaañu ca askan ba mbala sax njiital réew ma ñu def coup d'état ngeen dégg ko mu jàmbat dara ci aw yaramam ba tey loolee ginnaaw ba amu fa nag moom njiital Pastef li di Ousmane Sonko mu ngi sàkku rek ci CEDEAO ñu daal di tegandi ci suuf li ñuy tuddee intervention militaire tey itam mu ngi axtu njiital réew mi eh, ci dugal gi nga xam ne nar na ko cee dugal yoxoom nee na foo xam ne Sénégal yegg na ca ci guuta wala tuuxi doona ci dugal gi nga xam ne Sénégal mu ngi dugal loxoom ci intervention militaire gay xew ci Niger rek nañu leer ni nguur gi fi nekk dong ñooy ñi ko jëf waaye loolee gënalu ko moom jiital Pastef li ci biir euh, kasub euh, Sébikotane ga mu nekkee euh, ci la àddoo bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ay avocat ñi nga xam ne ñoo jot a génn boobu lépp bataaxal beneen avocat ci Ousmane Sonko du maître Ciré moom nag mu jiite ñi nga xam ne ñooy kuréelu avocat yi koy layool moom jiital Pastef la woon Usman Sonko, met Sile Karedor Nagmom, nee na Ousmane Sonko ba ñu ko jàppeek léegi def na euh, ay fani fan ba euh, tax na nag ba léegi mu ngi ci xiifal lànk bañ a lekk ak bañ a naan waaye itam def na juróomi fan yoo xam ne daal nanguwul benn euh, fajkat tiim ko ngir fas yéene jëfandikoo ay garab ci moom ngir sàmm ab wér-gu-yaramam moom maître Ciré Clédor li mu jàpp ne Ousmane Sonko jamono jile wér yaramam dafay gën di gàll guuse ba tax na daal mu ngi sàkku ci njiital réew mi di sàkku itam ci état bu Sénégal Sénégal ñu daal di xool ay pexe yu ñu def ba mën koo daal di bàyyi mu mën a faju moom Ousmane Sonko jàpp na ni sax lépp loo xam ne jot na ko dal ñoom ci seen jimi bopp ñooy endossé lépp lu ci ab responsabilité moom daal ci gis-gisam jàpp na ni Ousmane Sonko dañu ko daal di tëj ci kasu bi te defuwuñ ko nenn lu dul jaay ko doole bëgg koo faagaagal bañ rek mu daal di bokk ci ñi nga xam ne dañuy jiite ji réew mi ëllëg loolu kott lañu koy jaay xam ne da nekk nekk na nit koo xam ne askanu Sénégal bàyyi nañ ko xel ndaw ñi itam bëgg nañu ko fonk nañu ko tax nañu bëgg koo faagaagal waaye loolee nag jàpp na ni daal ak njaay doole dëggantaan la te Ousmane Sonko nag wér-gu-yaramam ko mu daal di des ci biir ndungu siin googule dañu ko war a bàyyi mu daal di dem uh, saytu di ak wér-gu-yaramam moom maître Ciré Clédor Ly mu doon addu ci uh, li nga xam ne moo jëm ci client boobu de Ousmane uh, Sonko mi nga xam ne daal ba tey mu ngi ci loxo yi ay yoon yaram te tamit naka ak wér yaramam wéy di doon loo xam ne ñu ngi koy gën di waxtaane keneen ki ci wax di Alioune Tine borom Africa Jom Center moom af Alioune mile euh, dafa daal di wax moom itam ci euh, Ousmane Sonko ak wér-gu-yaramam moom nag nee na boobu ba léegi maa ngi déggu ñuy waxtaane wér-gu-yaramu Sonko ba ñu baree bari di wax naan sax yëf yi mu ngi gën a jéggi dayoo moom Alioune Tine nag dafa ni nañ ko libéré ak mboolem koo xam ne daal yaa ngi ci biir kaso bi tey xiifal war nañ leen a bàyyi nag ñu daal di dox yi seen yitte ba noppi itam ñu sàmm seen ku wér gu yaramam ndaxte Sénégal dañoo soxla ak dal gu fi am waaye soxla wu ñu fitna goo xam ne mooy li fi yeewaat Sénégal li mu soxla dëggantaan jamono jile mooy toog ci benn table daal di koy waxtaane kenn ku ci nekk daal di jël li nga xam ne moom nga gën a yittewoo ci réew mi mooy ñu suuxat jàmm fexe daal ba dal mën ñëwaat ci réew mi waaye yittewoo wu ñu fitna moom Alioune nag mu jàpp ne ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko nag dañu ko war a libéré libéré itam ñeneen ñi nga xam ne ay détenus politique lañu euh, te ñu nekk ci biir euh, kaso bile Alioune Tine njiital Africa Jom Center moo dal di addu ci li ni jëm ci élection atum 2024 di atum yaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñu war a falaat njiitum réew su bees fii ci euh, Sénégal waaye yeewi askan bi ñi nga xam ne ñoo fare ca groupe parlementaire am ga ca assemblée nationale di pencum ndawi réew mi fas yéene ñoo déposé déposé un recours boo xam ne ñu ngi ko jëmale ci conseil constitutionnel foofule ngir ñu gàntal loi bi nga xam ne jot nañ ko wote jagleel ko Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade ngir ñu mën a ci palum jitum rew gi ñu dëgmal ñom ñi nga xamné ñoo di waa yewi Askan mi nak liñ ci jublu mom modi ne dañoo jàpp ne loi da fay jalgati lenn ci sarti rew mi fay tax sax nak njit ñi nga xamné ñoo jiite mi fi ci Sénégal di pouvoir bi gëna am doole jo xamné dal daal ko mën di jëfandikoo saa bu leen neexee def lu leen neex am na ci yenn ci ay sart yoo xam ne daal jàpp nañu ne nañu ko jalgatee ci boobu lépp loi ba voté ko ci assemblée nationale mu jot fa jàll ñoom ànduñu ci ba tax na dem nañu ca conseil constitutionnel ngir gantal boobu lépp loi lees ci mën a jëlee nag moom moo di bis bu conseil constitutionnel daal di nangoo seen bu boobu lépp gàntal loi bi Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade seenu candidature waat ndax dana mëna nek nekk waaw wala det muy mbir mo xamne ne des na ci baye xel la ci kanam rawul ay gëtt leneen li nga xamne itam dañ koy waxtaane jëm ci walu yoon professeur Ngouda mbop mom mi nga xamne xam-xamam dafa ci jëm ci walu yoon mom mi nga mom mi di professeur Ngouda mbop ki ñu naan Abba Mbaye di député taxawu mom nak moko dal di am ay kaddu yu mu yëkëti tek ko ci aw deram mu ne mom mi di professeur Ngouda mbop wa yewi Askan bi dañuy yëkëti lu toll ci un million cinq cent weer wu jotee di ko ko versé nguuda mbuub nag mu jàpp ne loolee ay kàcc la yu ñu lal ci ndoddam tubaab di ko wax diffamation dañu ko daal di sosal yàq aw deram ba tax na nag mu daal di koy bind daal di xam ne ni dina dem fa ma xam ne doone benn daal di fay yóbbu ki ñu tuddee Abba mbay mi nga xam ne moo teg ci ndoddam li loolu le ngir mu mën a ragg aw deram ndaxte jàpp na ni moom lépp lu mu jot a am daf ko ñàkk ci jëwam bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk muy lek lu lew la dom ci mom ndax da fay def ay recherche def ligeyam ci ni mu gëna rafete yàlla diko ci dénk li nga xamne mom lay jëfëniko mom ak njabotam waye képp ku taxaw ne amna na lu ñu koy jox te lépp jaar ci njut njaaj ak la ci aju mom professeur Ngouda Mboup jàpp na ni lolu dal ay tuuma la yo xamne dal dañu ko tek ci sama mom doddu te kiko def di Abba mbay dana ko yóbbu fa mbaxana doné ben ñu jéxal ak géejewaay kawteef ga fa xewon di ab xale su tuddu Serigne Fallou am lu toll ci juróomi at wala sax lu ko xaw a jege moom xale boobule dañu ko daal di faat foofu ca waaye faatin wu ñaaw daal di koy aj ci kaw teraas foofu nga xam ne fa la dëkk ay waa këram nag wër ba yem ci moom gannaaw bi nga xamee ne nag ab néewam yóbbu nañu ko ca l'hôpital def ci autopsie police lu ubbi na ci aw enquête deful ay waxtu ñu daal di gis kenn koo xam ne jàpp nañu ne wala njortees nañu ne moom ci boppam mënees naa jaar ci moom moom mënees naa njortu ne mooy ki ko def ba tax na police daal dina koy euh, jàpp ngir wéyal lu ñu tigi ci moom tubaab di ko wax enquête moom mii de sëñ Fallou nag am euh, cinq ans dañoo jàpp ne yaayam ak baayam dañoo tàqalikoo woon nekkatuñu woon cig buumu ko sëy baay ba jël ko dénk ko ab rakkam soo xam ne daal moom moo ko yeroon fële ca géejawaay ñu daal di koy jëf jëf ju ñaaw joojule euh, faat ko ba noppi daal di koy sànni ci kaw terrasse mbokk ak xarit yi ñu doon teewlu VIP People euh, TV li moo nekkoon seen ko flash info tënkum xibaar gi tey jëlee ci talaata yam ak fukki fan ak juróom ci weeru ut ëllëg dinañu dellusiwaat ci yeneen ni euh, information yeneen ni xibaar fii ci VIP People woy leen di euh, topp suñuy programme ci télé bi ñu leen di xibaare yu wér te wóor incha ngeen jëf